jërë ngeen jëf euh, mbokk yi tey dañoo fassiyene yéene waxtaane mbir mu tiis boo xam ne képp kuy sénégalais fi mu nekk nii yaa ngi koy naqarlu ba fu mu mën a lu ko waral nag mu jaaxal nit ñi ëlëm sénégalais yépp muy mbiru suuf coow li mi ngi amee ca Ngor damay tàmbali di massaw xale yi Ngor magi ngor magetti ngor ñepp ñuy yeewoo ngor ndax li suñu bëtt may ñu tek ko ci ay image dafa jéggi dayo te ñuy dem sax ba ay bakkan bi ci rot mu jur tiitaange ci askanu sénégal ñu bëgg nag leeralal lépp sénégalais yi lan moo xew dibi ba fin parce que am souf jàppal souf defena warul tax ay bakkan di rot ñu dalal elage Abdoulaye sam moom président commission domaniale bu mairie bu commune bu Ngor ñu bëgg sekk ak mom waxtan elage mang lay nuyu. ñu ngi lay fay pap di la massaw ni ngi kontaan bu baax di di la massaw itam di massaw sénégalais yépp mm-hmm. ndax image képp kuy nit ku yàlla may sensibilité doomu aadama nit na ci yow am nga lu la naxal ci li xew ngor donc ñu ngi wu ñep waye plus particulièrement la population lebu de ngor nga xamantene ñoko dund ay semaine donc ñu ngi wu ñep metti na yalla na leen yalla may xolu muñ allah amin insha ndax li dal sen kaw metti na trop di jale ni ci ñak ci deug deug ñaata nit ñoo ñak bakkan fofu donc euh, bala ñu ñëw fofu dañuy profiter ci occasion bi di la nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan yépp ci Dakar Matin di am mbégte mu rëy nag di jàkkaarloog yow pour exprimer wu li nga xamante ne moo xew donc ñun xam naa ne benn corps moom c'est sûr ndax sànq ñu ñuy woo muy la jeune fii mm-hmm. nga xamante ne aji la tudd aji Marème am 15 ans donc moom mu ngi ci morgo hôpitalu Grand Yoff donc sànq woo nañ ñu pour ak kenn ci famille bi pour ñu mën a dem pour ñu jéem a xool autopsie bi. mais ñun dañu dañu ne leen na naka procureur ordonné donc hmm. loolu suñu avocat digal donc ñun ñu ngi xaar lan lay mujj ndax bu ñu parax paraxee mbir mi. bëgg hmm. nañu xool réalité li xew ndax gis nañ si benn communiqué te bokkul ak xale yi nekkoon ci place bi li ñu wax. lan la xale yu communiqué bi man ma leeral ministre de l'intérieur dafa ne Elisu gaal moo dal ci boppu xale bi mu daal di faatu. mais xale yi nekk ci plage bi lan la ñu wax ñoom. donc boo gisee image yi am na xale bu ñu dàq muy daw muy daw. waaw gendarmerie di ko dóor ay liif ci ginnaaw di nga gis gendarmerie di seppi xale bi ci tefes gi. Hmm. xale yi nee na ñoom ñoo ko dóor bal si bopp. xale yi nee na gendarmerie ñoo bal si bopp. bi mu daanoo ñoom ñu dem jëli ko si géej gi. ab taf moment boobu gaal mënu fa jege ndax ku gis ful boobu gaal mënul jege foofu ndax moo lacrymogène ak yooyu. donc euh, lolo ay témoins sur place nous témoignons lolo. Mhm. Lolo ñun lolo ñu gëm. dañ ko door bal donc lolo moko faat waaye Ilis ko xale Ilis moo ko donc autopsie bi dinañ ko topp ba fi mais niñ ko bëgg a paraparaaxee nii du demee ñun gëm nañ ne c'est quasi faux loolu Ngor nangu nañ ne Ilis reyu ko bal moo ko rey place te man xale yi laa gëm nag ndax ñoom ñoo nekkoon si place. ah xel mën naa nangu peut-être lu mel noonu parce que hélice gaal xanaa ci biir kii ci biir géej gi sax. lay am benn rythme ba mën a dal sa kaw. waaw mais gaal gu ser. Mhm. hélice am nan la mën a dalee. ci bopp gaal bu ser du daw. du daw waaw te foofu gaal mënu fa am accès gaal amu fa accès ñun image yi ñu gis ku wax yàlla rek gaal amu fa accès place la nag pour gaal la. pour mhm. bato la. mais nan lay gis mouvementé bu mel noonu gaal di traîner ay gendarme yor ay lacrymogène yor ay bal ay bal bal bal yo xamante bal réel di ko dóor gisuma ne na piroguier bu war jël risque di yor gal di traîner foofu loolu kenn gisu ko ci image li ñu gis dal xalé wax ka ñom ñoko ray les forces de l'ordre ñoko tiré mu daano ñu sippi ci ndox mi yëpp ko ci sàkk yóbbu ci hôtel gor Jaaraama teg ko foofu loolu la xale yi témoigné ñii di liggéey Ngor a gis ko loolu la ñu wax. Mhm. te man loolu laa gëm. Mhm. na ku nekk jël sa responsabilité mais loolu moo am xale bi dañ ko faat benn Ilou la rey ko. ok léegi El Hadj balaa maa ñëw ci lu xew di ci dama bëgg nga nettali sénégalais yi hmm. coowul suuf loolu fan la tàmbalee ba lii yëpp xew ci ak lu lan la demee nga expliqué ko mu leer. merci Pape loolu dinañ ci sawar. ndax ku ne na Ngor saa yu génnee problème foncier bii moo ko yëkkati ndax dañu doon population boo xamante ne dañu souffrir ci ay d'après la loi 1964 bi ñu àndee loi domaine national si la ñu ndikk nangu suufi lébu 69 mhm. ñu def benn loi boo ne le des almadis. donc ñu proposé woon mag ñi jox ultimatum bu

ñooñu ñëpp dañ jëlat titre privé tek sen terrain waye genn won ay hectare ci ay espace bu ne genn fay hectare pour utilité publique ay hôpitaux dispensaires mairie et cetera et cetera. Mhm. hectares yu bari donc xat sax moo tax andi mo plan remembrement des almadi ndax ñun suñu suñu ancien maire bi jëlo ko impôt et domaine jëlo ko cadastre ndax dañ leen kay neub ndax ñoom ñooy ñëw détourner objectif bi morcelawat ko jaay ko wala ñu dëkk ko bu demé autorité rek fa dëkk. Eh, pouvoir bu ñëw xoolaat remembrement des almadi bi jëlaat ko ñoo mon seen titre si cosaan dañu jël seen kayit nëbb ko jël ko jox ko ay privé wala ay société sax lañ koy faral di ko nëbb dañuy créer benn société titre ko à son nom làqu si ginnaaw donc almadi ku comprendre da nga naan lébu yi ñoo jaay seen suuf or que dañu foxati seen suuf hmm. loolu mooy histoire réelle du remembrement des almadi ñeneen sax la loi de Ngor lañ ko tuddee ndax Ngor rek la am loi bi ngor dong lañ ko appliquer parce que ngor fu mu nekk moo bakkane moo tax ñëpp bëgg faa dëkk. waaw xam nga ngor mu ndikk joxe suuf si premier hôtel bi nga xamante ne moo gënoon luxe à son époque muy le Méridien. Mhm. actuel Ngor Jaaraama Ngor moo joxe woon suufam en 1965 donc Ngor yàgg na joxe suuf Ngor Jaaraama bi si ginnaaw. Mhm. tamit Ngor dafa joxe woon suufam jamonoy première euh, euh, festival des des des Arts nègres. Mhm. ñu joxe suuf boobu. kenn faat place gi yàggul aussi Ngor dafa joxe suuf hôtel des Almadies bi njëkk ko moomoon Ngor dafa joxe woon suuf mhm. yooyu yëpp ñu dig leen mbégte la leen di jural emploi la leen di jural mag ñi di joxe ñoo ñooñu doon joxe seen suuf réquisition aéroport bi ñëpp xam nañ ne réquisition bi c'était pour fait de guerre en 1943 Pape bu ñu demee ba di ko jox ay Sénégalais mu dëkk ñu génnewoon seen iller bàyyi seen i tool. ngir utilité la waaye bu doon dëkkuwaay la ñoo ñoo si gën a yey pour dëkk mënu ma la wax benn lebu bu dëkk si biir aéroport bi ku ne xam na ne problème mu euh, euh, jàll na fi muy Tobago. Mhm. Tobago Saint-Lazare la ne. victime mu Tobago victime mu Tobago 82 la ñu signaloo président 366 boo na ko ñooy victime mu Tobago. ñëw na dañ leen. 86 la 82 ñu ñu recaser leen Ngor Almadi si biir piste bi. waaye yow bu dee yow fi nga am kër ñu toj ko ba problème di rectifier la ñu toj dañ lay delluwaat sa terrain fay la xaalis boo ko tabaxee Tobago Saint-Lazare la ne victime Tobago lan la ñuy xor ngor ngor ñu recaser leen ci zone aéroportuaire bi sàcc fa sàcc gu metti d'après bi mhm. maître Wade defee li mu def ci aéroport bi. Mhm. ñëpp umpalewu nañu ne deux mille euh, quatre mille deux cent mètres quatre mille deux cent francs la jaay la mètre carré. Mhm. quatre mille deux cent francs man dama jàpp ne xale yu ngor sax bu ñu leen ko jaayoon. ñoom dinañu mën a jënd suuf soosu moom lañ ko jaayee mag yu fay jaay ko Cheikh Amar à hauteur de cinquante deux hectares ñu jaayee ko vingt milliards. donc loolu nga enrichir ay ay ay ay ay ay personnes bàyyi population boo xamante ne remembrement jaar na fi littoral bi nga xamante ne suñuy maama ko moom saa yu ñu demandé pour régularisation. Mm-hmm. ñu ne leen euh, domaine maritime la mais domaine maritime bi boo fa demee ay kër yu bakkan nga fay fekk. ñoom ñoo fa dëkk ci domaine bi ñu dem naa fa reportage seetaanoon naa ko bi nga nekk si benn seen télé mhm. jamono boobu jëm nañ la contacté boobu ñu ngi woon tànk di yëngu ci mbir yi tànk maa ngi koy fàttaliku voilà j'étais le am na benn dimanche ma mosoo ñëw añ ci côté yooyu ñu contacté woon ma si mhm. donc loolu yàgg nañ ko si bi nga si defee reportage bi si la ñuy intéressé woon pour ñu dafa yow émission mhm. mais jotul woon sotti donc littoral boobu la ñuy xëy di ko déclassé di ko dagg gis nga li Ablaye Wade maître Ablaye Wade dagg ci Almadi village ñu tuddee ko euh, village euh, Fesman bi mujje mm-hmm. fa lañ tegoon conteneur yi terrain tolluloon noonu si ginnaaw danañ Cheikh Amar am na fa donc noonu la ñu continuer ak corniche des Almadies mm-hmm. ku ne xam na ne président de la république maître Wade euh, monsieur son excellence Macky Sall nee na woon la mu fa am sa suuf jox na ko la commune de Ngor jeunesse bi fa lañ def terrain football bi fa ne mm-hmm. mais boo demee titre ba trop moo fa ne fan yële Soumare, Soumaré ex premier ministre ñëw na fa wàccee conteneurs. Les enfants, ngor dem fekk ko fa ne ko ko fi tabax. Soumaré Soumaré 2000 mètres carrés am ko fa euh, Abdoulaye Diop ministre des finances am 2000 mètres carrés un certain Kader Sow 2000 mètres carrés loolu ça, ñu morcé la C'est si parce que dañu un privilège d'être ci un poste étatique alors que nous, ko moom si cosaan bind nañ maître Wade bi mu président collectif pour régulariser ko ñu bañal leen ko. wa ngay ngay bañal ay autochtone hmm. ño xamantene fo albuntu ko ci rew mi am nañ fa kër ñooñu ngay jox soufas lebu gi lolu la xalé yi ngor yi mënatul woñ bo xolé engagement bi am mag ñi mënatuñu wax xalé yi dégg xalé dañu amatul espoir hmm. amatuñu espoir tay ji ni xalé yi buñu leen bàyyi won tay ñu génn ndax décision bi jël sax ñu neexu leen ndax bokk na si limay faral di wax xalé boko xagne xam-xam xañ ka am am lu mu nekk si àddina yàgg ko teg xale li koy may xam-xam am euh, secondaire sa waajur am problème ndax hors de ton village peut-être yendu bi sax mooy tane boo waree yendu li nga yóbbaale xaalis. Mm-hmm. jënd fa dara pour toog fa. boo waree passe aller retour ci population bi nga ay bi fa mais gis naa ci côté ñu ci problème bi gis ci ci corniche bi. foofu ay kër yu bees yu ñu dagg mooy côté fi restaurant yi nekkee yooyu chez Fatou ak gis naa foofu tamit ñu tabax fa daggat ko fi mu nekk nii te ñi ñi nekk ci nguur gi ñoo fa dëkk. waaw foofu euh, bu dee corniche bi ñoom foofu lañ daggateeree chez Fatou. waaw boo commencé foofu yëpp dañ ko dagg commencé foofu ay morcelé nañ ko. la nañ ko ba dagg ko mais li fa nekk ay terrain ay ay exploitation yi fa nekk ay restaurant la. restaurant mais bu dee foofu yëpp. daggat nañ ko. avant nga yegg iya ci restaurant yi. du ñoom du ñoom ñoko jëk dag régime bu fi jaar dagg nañ mais ngor mosu leen si bàyyi au temps de Diouf ba tay régime bu jaar daggan littoral bobu mais sa yu ko dagge problème bi moy nak dinañ ko tabax maître Wade a essayé astaghfirullah président Macky Sall essayé nako tabax mo fu ndik teg ay seng bi bu ko fa tegee jeune ngor dañu dem daniel ko bi mu xamé na li ciow lay indi bi mu nekké président ko mais ba tay bo démé titre mo fa nekk donc fooy gi ñuy fooy askan wi considéré ñu leen la xale yi mënatul continuer dund. 864 mm-hmm. hectares mooy mooy surface aéroport Léopold Sédar Senghor bi ñaati Sénégalais ñoo si bénéficié wu. ku prévoir ba prévoir 30 hectares pour parc forestier yow àll bi sax prévoir ko mais autochtone yi moom lébu yi moom nee nga leen araam na pour ñu dëkk si aéroport bi loolu ban askan moo koy dund nga bëgg kooku ëllëgam mu jural la jàmm. d'autant mm-hmm. plus ñoom ñoom ñëpp. fa lañu am kër mm-hmm. ci biir ngor almadi ak ci piste bi actuellement gouvernement Macky Sall bépp si piste bi am nañ fay kër ay kër lañ fa am kër yu bakkene ay piscine ak yépp ñu def ko fa ñi mujjé fa la sax am nañu ngor kër ñun ñi ci dajal ñëpp daanaka ngor lañu am kër donc duñu ne bay diiw moom ak jaay si lebu gi niñ def ba am kër yoy ñom xam nañu ko donc c'est ça le mal profond bo nga xamantene mom la xalé ngor di dund mm-hmm. luñ leen mëna waxal musuñu gis ben ciow si Sénégal duñ ci faral dugg dañuy yaakaar sax duñu ay républicain loolu la leen yàlla natoo dañu désintéressé wu ci lu bari ñom mhm. nañu lek bu sour dem plage am sen jàmm mhm. mais sen honneur ku kan laal rek ñu yëngu ciow li ma sa am gor yi ma fekkee yépp suuf moko waral mais Sénégal jog na ngor jog bari lu muy am bëriwul te nak li ñuy préparer ci xalé yi xalaat na ne fa lañ bëgg yóbbu orienter xalé yi ndax nit ki bu demee ba am esprit rébellion bi. Mhm. dama yaakaar ne ya yar sa kuy ba mu màgg te li ñu naan balaa muy mbëkk kenn ah fi mu nekk nii de fii ak euh, depuis trois semaines dañu leen tenir tête. Mhm. Hmm, dégg naa un petit village la ñuy wax wante un petit village qui tient tête. Mhm. parce que li ngeen def conviction la léegi lan moo waral coow merci coow li ko waral depuis daaw inondation yi ku ne xam ni mu def Sénégal. mais dañu war a xool inondation yi lan moo ko causé. ah lan moo tax mu mel noonu Ngor pap Ngor dafa am ñaari canal. canal benn bi génn virage benn génn boor kenn fal derrière Farba Ngom kër mm-hmm. yooyu à ciel ouvert la prévu pour des eaux moo daan drainer eaux pluviales eaux pluviales yi di nekk ci aéroport bi yi mu déverse ko virage yi mu déverse ko si océan bi Ngor. Mm-hmm. tey boo fa demee vingt quatre heures sur vingt quatre ba Ngor eau yi fa nekk yëpp foofu la jëm. eau mm-hmm. usée yi. donc ñun suñu suñu économie maritime bi daan am géej gi yàq na ko ku ne xam na ne été bi ngor la ñu ñu daan dem di ut ay patel mm-hmm. soxoor et mm-hmm. cetera ndax euh, fruits de mer yi bon macha allah. macha allah mais léegi amatu fa parce que biomasse bi salte bi nii ci géej gi ëpp na un mètre boo wàccee suuf da ngay mel ni kuy jéex poussière mel ni fekk àll bu poussière foofu benn fruit de mer mën fa dund. Mm-hmm. donc rey nañu code bi yëpp si ay eaux usées li ñu ko ONAS avant particulier ici, branché clandestinement ONAS moo ko de virage aux il y a des tuyaux ONAS qui déversent 24 heures sur 24 sur l'océan brutalement comme ça C'est la réalité. Mhm. donc askan woowu seen économie ray nañ ko suuf bi ñu war a dëkk foxate nañ ko si ñoom te Pape audience yi ñu mas a am yépp Bi Abdoul Mbaye premier ministre bi ñu ñëwee Macky Sall ku ne xam na ne taxaw na wakam naxarul li Macky ni Ablaye Wade def suuf si. Mhm. na bu ma toogee dinaa ko réparé. premier jour campagne électorale am. loolu àddina gépp seede ko. Mhm. bi campagne bi doxee ba sunu wayjur El Hadji Bassirou Diagne grand sëriñ gaañu. Mhm. lébu yi daje fa ak président mu ne leen fàttewuma li ma leen waxoon damay door a toog te ku ne xam na ne bi muy door a toog li mu ndikk jël décision mooy nañu arrêté toute activité menant de ce site chantier yëpp la ñu arrêté woon. nit ñi am yaakaar ba jour ay morcellement am fa ñu dem def enquête muy le ministre du renouveau urbain far Farba Sarr moo fa nekkoon dëgg 990 parcelles def ko tong-tong pour waa APR ñu def ko ay baux ouverts mais baux ouverts yi boo joxewul xaalis doo ci am octroi yi ñu ko lee Sénégal lam dañ ko doon jaay. directeur impôt et domaine bu ñëw bu domaine bu ñëw enrichir si poosam def alors que ay population toog di souffrir loolu mooy coow donc inondation yi dëkkuwaay yooyu ñu def la suuf si daan naan loolu suuf si mënatu ko naan ndax def nañ koy dëkkuwaay léegi yooyu yëpp day orienté wu dem Ngor maire bi day inondé gendarmerie bi day inondé gendarmerie maire bi ñëw jàkkaarloo. jàkkaarloo waaw benn dox mhm. donc gendarmerie fi mu centre socio culturel Mm-hmm. depuis 17 ans ñun ñoo leen ko jox ndax poste wakaam la ñu amoon ñu soxla woon poste Ngor ñu xaaj ko. yéen mairie bi yéen a ko joxe woon. ñoo ko ko joxe woon. ñoo ko joxoon gendarmerie gendarmerie le maire Mamadou Kane. Mm-hmm. d'ailleurs ñun sorties yi ñuy def yëpp ñoo ko moom mooy ànd. Mm-hmm. moo ko joxoon gendarmerie. centre socioculturel yemu si boobu la général Ablaye la colonel général moo fi nekkoon. feu Ablaye Fall mu ànd ak moom jox ko benn titre pour ñu régulariser ko pour jox ko gendarmerie ça moo jàkkaarloog fii parking bi ne. Mhm. donc la ca am domaine ñoo ko dem fayee un certain euh, femme bi amna benn femme bu ñu fayé suuf soosu si titre bo xamantene benen beneen litige la ñu jël titre bi ñeu tek ci titre boobu. fayé ko ndaw si ko ndaw si donc li ci am lepp service état bi la. Mhm. donc kon Ngor dafa yàgg bëgg dimbali gendarmerie pour mu am. espace bu baax. fekk yéen da ngeen ko mayoon 1000 mètres carrés déjà. si jamonoy Ablaye Fall. jël jamonoy Ablaye Fall bi mu demee affaire bi domaine la tagge. mu dem mu dem domaine ñu téye ko. waaw ñu téye ko foofu. ñu wëlbatiku waa domaine jël suuf soosu ngeen mayoon gendarmerie. ñu joxe fayee fayee ko kenn ku jigéen. voilà ndaw su jigéen. waaw ba tey sax litige dafa am. litige ba tey jii dafa am litige. waaw am na benn partie bu ñu tabax mais am na partie boo xamante ne mu nga fa. ça fait plus de 1000 mètres te ba tey bokk na si proposition yi yi leen jox ne leen bu laajee Delphine Ndiaye la femme bi tudd Delphine Ndiaye bu laajee ñun ñu fay Delphine Ndiaye parcelle bi nga président joxe woon na piste bi ñu def échange gendarmerie dem foofu nous ñu bàyyi ñu suñu parking kon ñun suñu bëgg gendarmerie Nengoor wane nañ ko en toute responsabilité. kon yéen gendarmerie dafa ne dafa bëgg délocaliser brigade voilà voilà dañu xëy le dañu mars. waaw gendarmerie dem dem la veille lañ man le premier mars mhm. la veille la commandant bi au monsieur le maire dañuy mu ne ko loolu mooy lan mu ne ko non général moo ni oo nañu dañuy dem suba suba dañuy dellu wakam donc loolu rafetul sax si diggante ñu bàyyi leen ñu dem lépp laaj leen lu tax ñu ne moom général bi moo nañu dem eh, donc ñu bàyyi leen ñu dem moom dafa am kilifa ñu dem seeti ji général seet ku ko xam mu recevoir ñu bi mu ñu recevoir c'était le 2 mars mu recevoir ñu toog ak moom ñu ne ko ñun insécurité bi ñuy dund ngor ak boîte de nuit yeeg île beeg plage yeeg yooyu trafic bi bëgguñu gendarmerie sori mu ne demandé naa leen suuf mais joxu leen ma. Mhm. man munuma ne ci confort sama njaboot di ne ci inondation ñu ne ko confort boobu de ñun moom lañ leen bëggal ak du mbeng jooytu nañu loolu nee ne bu ñu ko joxee suuf ñoom ñu tabax sur fond propre mais ñu ngi seet ñun amuñu patrimoine maire bi. Mhm. te bi ñu toogee ba léegi man en tant que président commission bind naa service yëpp pour am plan de masse bu commune de Ngor ak morcellement yi ne ci biir site de l' aéroport ñu xam équipement yi.

ñu leen bu ngeen bëggee mbokk man ci def délibération jox leen ngeen jox lool gendarmerie waaw ñom ñu ne bëgguñu fofu day inondé comme gendarmerie mhm. ñu ne non gendarmerie bi ngi koy def boobu amana sëkk guñu won mbédé yi pavé ak yoyu motax mhm. mu soufé mhm. mais buñu leen joxé fu bees won ngeen ko mëna tabax tabax bu mucc ay badu inondé mëna fofu gënalu ko ñu won ko bo génné gendarmerie amna benen place publique boy jàkkaarloo ñu wax ko fofu mëna fofu gënalu ko stratégique ci biir rond point ngor am na benn centre de santé bu newoon foofu jamono yi bi ñuy bi gendarmerie di tabaxaat Wakam ñun foofu lañ leen abaloon. Mm-hmm. bi ñu yóbboo hôpital bi délocaliser ko yóbbu ko fi mu nekk centre de santé bi toog nañ fa lu ma deux ans ou plus mun a foofu c'est pas stratégique bu coow amee xale yi dañ koy war. Mm-hmm. may préciser benn mbir xale ngor daan nañ jotee gendarmerie gendarme mais gendarmerie ngor xale ngor ni lañ leen daan rombe dem xeex ji la ñuy xeex oñ ko waat ndax jàpp nañ ne ñii bokkuñu si te it mosuñu fekkee xeex bu am gendarmerie Ngor ñi fa nekk dugg ci xeex bi. Hmm. yeneen i gendarme ñu daan ñëw ouvrir manifestation yi donc loolu lay la rek commandant bi nañu moom parking bi moo ko gënal. parking bi si parking bi la bëgg na xam moo gën a stratégique ñu ne ko mais en face parking bi mën nañ la jox foofu benn la mais voom la wax mu ne non foofoo gën a stratégique bu fa amee 500 mètres carrés baax na. 500 mètres carrés. mu ne bu ko fa amee baax na. très bien c'est précis nee na ñoom. Nous laaj na bu ñu mètres carrés foofu voilà donc. ok ñu ne leen mënuñu mètres carrés 300 mètres carrés 300 di jox. mètres carrés. léegi nag ñu ne service yi gendarmerie peut-être yéen yéenay gën a gaaw enquête. Mhm. pour li lijjantil ñu litiges yi ñu wax fii. waaw ah assiette bi lan mhm. comme ça ñun ñu avancé. avancer. donc le le 2 mars le 2 mars après midi bi lan la arrêté si général Moussa Fall pour ñu def une brigade provisoire sous forme de conteneur. Mhm. sur le parking. brigade provisoire. Oui. parking bi ñaata la superficie. 6300 mille et quelques mètres carrés. 6300 mille mètres carrés ok. donc ñu ne ko mu ne moom mën na fa def brigade provisoire maanaka nañ dem sur le site bi ñu demee sur le site maanaka fii activité moo fi ne yii ñu tracé nii dafa am ay contrats yu fi ne ñooñu dañuy fay annuel di fa seen mhm. donc wan ko benn espace naka fii mën nañ fi 300 mètres carrés sous forme de conteneur ngeen def fi activité ingénieur bi ak techniciens sur place on a fait une vidéo daan na aussi brigade bi brigade bi dina di euh, comment ay activité ay service de contrôle voilà dina ko multiplier comme ça di def patrouille matin soir. Mm-hmm. donc dinañ fi teg benn oto boo dina servir pour ñi nga xamante dañu bëgg légaliser oto. du mm-hmm. jar ñuy dem wokam rassurer le temps que ñuy trouver terrain pour yóbbu fa gendarmerie ñu tabax sur fond propre comme ni ko waxee le le huit ñu nous gouvernance gouverneur côté bi mu ñu def exposé. Abdou moo dikk jël parole le colonel Abdou Mbengue mu ne bon man dama doon ñaana ah, doon ñaan maire bi 500 mètres carrés ñu may dawloo bëgguñu ma jox naa man 300 lañ may jox léegi comme nag ñoom fii ñu doon fi ma la doon ñaan ñoom moomuñu ko état moo ko moom man je prends tout. Casamance mu ne mu ne léegi day jël 6 000

bi ñuy def euh, zone d' extension bi ñuy wax 57 57 mooy zone d' extension bu Ngor. Mm-hmm. suuf bi dañ si dégg ñu ne Serigne Cheikh Serigne Cheikh moomul superficie bépp. Mm-hmm. Serigne Cheikh dafa am lu lu mu ci amoon. Mm-hmm. ndax ñoom bu ñu bëggee def seen jubal yooyu dañuy jubal dañuy jiital kilifa. kilifa waaw bu jàllee morcellement bi jàll. Serigne Cheikh bi mu tegee baraak. Mm. pour commencer liggéey jeunes yi Ngor dañu dem daaneel ko. na seen suuf kenn du ko maye duñ nangu kenn ñu jox ko ko. ba mu dégloo nit ñi ñu expliquer ko Serigne Cheikh daf ci génne -hmm. Serigne Cheikh kër gi mu am bir Pinkin Fat mm-hmm. meeru mage meeru ngor bi turandoom di nijaay papam mm-hmm. moo ko jox Serigne Cheikh muy bàyyi magee ciun donc ay wëllëre la am ay xarit ay xaritam la papu magay ndjay meeru ngor mm-hmm. Serigne Cheikh gërëm nako ko ci ci si si kasetam nee na taalibe Ablaye Thiaw la mais defal na ma teranga bo xamantene sama bintal bi defal mako ko donc Serigne Cheikh teranga la Cheikh ak waa ngor bi wa Ngor non, noonu daf ko nangu ci kilifa jëli bagagem am mm-hmm. donc 28 huit titres yooyu quarante cinq zéro la euros, muy muy parking bi. Mm-hmm. y avait trois terrains donc bi la fi te Ablaye wad a def bi def bi pour ñu def ko parking. Mm-hmm. ndax gis nañ ne foofu amuñu auto amuñu fu parking si lañ ko Azurut c'est la ci en Azurut. donc lañ ci arrêté mais exploitation bi mairie Ngor mo koy def ñi fa nek mairie Ngor mo leen fa implanté mairie Ngor lañuy ñuy fay. Mhm. donc bi aussi bi passé ba légui mairie mo moo koy exploité donc ñom niñ ko defee titre d'état ñom ño xam yéen ni que niveau lañ jaar ba def ko un titre d'état donc gendarmerie loolu la waxtaan ak mom ci biir ci biir gouvernance gouvernance mom 500 la bëggoon léegi bëgg a lewal 6300. 7 bi mu ko waxee. ñu nit ñu def suñu exposé wax na ñun président dafa waxoon ñëpp di ko déglu jël na 5000 mètres carrés jox ko la commune de Ngor pour ñu def si lycée. lycée. 5000 mètres carrés sur le site de l' aéroport. lycée. ñu ñu recevoir ñun bi ñuy door toog recevoir nañu ñu recevoir ñu toog waxtaan mën fu lycée bi toll ñu ne ko lycée bi tabaxaguñ ko mu ne lan jànguñu loon ñu ne ko tabaxaguñ ko ba di si jàng. d' ailleurs 5000 mètres carrés yi nga joxe woon 3000 mètres carrés yi def nañ ko à usage d' habitation 2200 mètres carrés moo fa des. mu oo ay kilifa yu mu sant woon liggéey bi sunu kanam laaj leen lan mo xew. man jamais moom cinq mille yi mu leen joxoon. deux mille deux nañ 3000 pour cher yi. ba dess 2000 2200 2000 ke way cent deux mille président doog si rendre compte moom. door rendre compte mom mi doon wax ndax sen lycée pare na ñu naka brique teguñu ko ñu naka président lycée bi fimu nekk dafa sori man buñ ne lycée bi sax lycée Ngor la man duma nangu ndax Pape amul kër dafa am kër difa fa lycée bi mom la gëna jarign yow mi di pass di ñew mm-hmm. lycée bi riverain yoy ñu fa joxe kër pour ñom la ndax fo xamantene doomi ngor pour mu jàng fe day pass ni muy passé yof wala wakam boko tuddé lycée de ngor aw tour do nga lañ ci am dafa sori mu ngi ci biir piste ba te fi mu nekk zone boobu wakam lañ ko tuddé président bi ñu waxtaanee loolu mu jaaxal ko torop mu ne waaye dina ci am taxawaay le lendemain ñu envoyé ñu ñaari titre muy 2200 mètres carrés yooyu. ak 1800 mètres carrés boo xamante ne mu ngi nekk côté Yoff ñu ne mooy extension lycée bi. Mm-hmm. donc suuf bu nekk Wakaam extension bi nekk Yoff pour waa Ngor ñu noo prend acte mais terewul def nañ communiqué gërëm ko ci acte bi. ndax mm-hmm. teraanga moom ku ko def. dañ koy wax de tuut. Mm-hmm. ñu gërëm ko ci continuer sunu ay démarches donc bi gendarmerie waxee loolu la soxla ñun dañ leen wax mal bi ñu dund yëpp gouverneur na ah kon nañu taxaw nañu taxaw eh, ñu formé benn commission. ñu xool noo leen di régler problème bi. le sous-préfet des Almadies moo koy jiite. Mhm. ak service état cadastre mu ngi fa woon urbanisme mu ngi fa woon. Mhm. donc euh, euh, ak euh, recevoir domaine bi nekk Ngor Almadies te nekk fii si Patte d'Oie donc ñooñu fa nekkoon ak Descos. Mhm. donc ñu war a def benn commission boobu taxawal ko ñun ñu toog di xaar déggatuñu benn activité donc dañu xëy benn dimanche gis fa brique ciment à fer on dimanche. ci six mille trois cent quatre-vingt-dix-sept mètres carrés. ngeen xëy rek fekk fa ciment brique ak lépp. te xam nga ne boobu yéen a ngi doon toog di xaar. ñu ngi arrêté commission bi. waaw di xaar nan la ñuy defee enquête. ba trouver solution. xool assiette foncière bi. Mhm. lan lañu ñu mën a génne. Mhm. si euh, terrain nu yeex ci terrain terrain privé yi. Mhm. ñu xool nan la ñuy attesté la gendarmerie ak la commune. Mm-hmm. ba ñëpp ku ne gis boppam. Mm-hmm. ñu toog di xaar ñu xëy dimanche gis brique fer ciment. laaj ko ko fi def ñu ne la gendarmerie. le lundi ñu jël benn pokone mel ni kuy saboot. ginaar guy kas fu ne ci parking bi ñu gas ko oto yi fa nekkoon ñu ne nañ génn amul sommation amul dara le mardi ñu oote parce que le bi dimanche bi bi ma xewlee jaaxle nañu le lundi ñu au gouverneur laaj ka lan moo xew. dafa am lu ñu arrêté woon mun na ndax wóor na leen ne gendarmerie ka def ñu foto ko ko envoyé ko naka c'est la gendarmerie ñoo ko fi def mun a waa baax na dinaa leen revenir le mardi xale yi dëkk bi yëpp jóg dem parking ba fekk chef de village ak imam ak maire oote nañ ci jàkka ji. Mm-hmm. pour waxtaan ak xale yi ba ñu utiliser seen force. Mm-hmm. na comme dañu tàmbaloon ay waxtaan may leen ñu ñu delluwaat waxtaan man man maa jubal sa parking ba. Mm-hmm. na mag ñi bu ngeen yéexee ñu songoon laajte kat responsable ñu wax ma donc mu ne moom moom mënul avancer am na responsable buy responsable bi mu capitaine Guèye la bi mu ñëwee ñu ne ko dañu bëgg waxtaan dañu ci waxtaan donc ñun li ñu gis daf ñu jaaxal mu ne bu ngeen bëggee ñu waxtaan da ngeen di wax ñii ñu parking bi. ñii ñan. ngor waay fa nekk. ne kenn du fi génn parking bi parking bi moomu leen lan moo la attesté ne yéen ko moom ñoo yéen a ne ni di nga fekk ci biir commune nak naka mu génn duñ genn mu ne ma ah ma ko duñ genn mu ne bu ngeen génnul na leen genné na ay arme ay ay élément armé vous mettez vous en position ñom ñep ñu jël seen affaire yëpp tak taxaw xalé tak taxaw chef de village maire imam ñew naka géy dañu bëgg ñu waxtaan fi ay kilifa ñoo fi ne mu ne bu ngeen bëggee ñuy waxtaan na xalé genn xalé na duñu genn ñu gazé maire bi imam bi chef de village bi gazet wallahi la imam bi maire maire bi ak chef de village table ñu andulon yépp ak notable yi yépp ñi ñëwoon pour waxtaan na xalé yi toog leen ñu dem waxtaan à côté yàlla mi ñu tim doy na seede ñu toog waxtaan mu ne waxtaan mënul am fex bu neex ci parc bi xam nga 6300 mètres carrés yaatu na mm-hmm. fu ñu làq waxtaan bàyyi ñële taxaw fële mm-hmm. loolu yomb na mu ne nañ génn parking bi su boppam ñu ne ko parking bi kenn du ko génn ndax dara attesté ne yéen moom parking bi titre d'état ñëpp si yam ndax ñun ba tey ji ñu information mu gazé ñu donc fekk na tout au long di parking gas nañ ko si ginnaaw imam bex chef de village bi ay xalé ñu la doon yek comme ki yek seen doom di leen jàllale imam bi ak notable bi ak ak biñ gazé waaw ndax boobu reer nañ xameetuñu ñu day fofu yaatu na mais dañ doon daan ci kan yi non gëna daal kan bi gëna na gën na kawee lii gën na xóot suuf lolu mak man na si wacc génnaat xalé ñoo leen doon fop kon ay kon du téye seen doom jallale leen mënu ñu délu dëkk ba affaire commencé donc premier jour bi loolu ko andi ñu ñëw o Abdou Mbeng ak Abdou dañu bëgg ñu waxtaan mu nañ dajé ci parking bi parce que boobu mu ngi won ci levée du corps Omar Sow. Mm-hmm. directeur mm-hmm. urbanisme wallahi fa la nekkon mu ma ngi ñëw biñ ko owee nak naka foofu mu ngi commencé tàkk nee na si la demee sans tenue sol tenue mhm. gendarme ñëw ñu daje si parking bi bi ñëwee ku ne wax mais man lii ma wax ni laa ko wax ma ne lan moo changé mun na je reconnais y a défaut d'information ñu ne ko kon ñi xale yi ñu jot jàpp nañ leen bàyyi ñun ñu dem wax xale ngor yi ñu oñño ko ñu continuer waxtaan bi ñu nekkoon te ñu arrêté travaux yi en toute sincérité mu ne man day mën naa bàyyi ñi ñu jàpp. man naa oo samay élément ñu oññ ko ngeen waxaat seen njaboot ñu oññ ko yéen nag fexe leen seen njaboot déggal leen ndax man sama njaboot déggal nañ ñu nag incha allah dinañu ko def mu may ñu loolu mu a waaye nag travaux yi man du man maa koy arrêté yéen xam ngeen fan ngeen war a jaar ñu arrêté travaux yi mooy man jotuma ndigal pour arrêté travaux yi donc loolu du sama ressort ñu nangul ko ko mu defal ñu la la ñu oo xale yi ne oññaku leen depuis lool Pape kilifa gu ñu toogal nee nañ leen lii ñuy dox.

wakaam mi nga doon tàkk yof di tàkk. mais <laughs> benn famille lañ. benn famille yow moo jur ngor moo jur wakaam ñu sëyante suñu biir. waaw donc suñuy frère a ngi yoof suñuy frère a ngi wakaam mënoo toog ñuy tooñ sa population tooñ gu ñu fés àddina gépp xam. ak toroxal di ko toroxal nga toog di seetaan donc loolu si lay fi yi tàmbalee ñuy ñaan njëkk pour ñu arrêter travaux yi ñu gën di renforcer seen sécurité di baare dëkk bi ku bëgg dugg ñu jënd yaay kan ku bëgg génn ñu jënd yaay kan ñun xamuñu état de siège xamuñu ak notel tubaab bi sax nootuñu won te yalla mayon naka doole dañ ma sa am liberté duñu tok ba 2024 ak nit wala 2023 ak nit duñu not xalé yi mënuñu mënuñu nangul lolu présence dana seeni saar yooyu mënuñu ko nangul d'ailleurs du ay mor am na la gune yi tak pour génn mais dañ leen wax dañ ñu may ndax nit da ngay am kilifa

yeneen image yi moom ñëpp dinañ ko gis daj nañ buntu kër avancé daj néegu biiru jàmbur dóor lacrymogène si lal bi mu bën na ko doon lakk gars yi fay ko loolu ay image la kenn mënu ko triqué donc gis nañ bal réel yi ñu dugal biir Ngor yooyu blessé yi ak blessure grave yi yi ay bal réel la yi ma envoyé yi ma envoyé noonu mu coupé ko ba def ko statut loolu ay bal réel la loolu kenn kon kenn tenté ko kenn inventé ko donc loolu c'est quelque chose de très clair donc ñun xamuñu si ban dëkk lañu ci ay kilifa di waxtaan nga def ngay sans autant que waxtaan wa ñu chez le gouverneur man dama jàpp ne gendarmerie ne ni ñoom amuñu kilifa man la ma jàng histoire bi ndax ku fekk espace titre d'état rek soxla woon 500 soxlaatuma 500 dama koy def caserne avec des logements projet bi caserne def avec des logements. te brigade brigade. an sen logement yi nekk okam 864 hectare yi CDC bi état bi mënu see dagal gendarmerie est-ce que état bi mënu leen dagal CDC bi ñu dem defi seen activité def fa seen compagnie. mais yéen foofu si tim da ngeen prévoir def fa lycée. lycée lañ fa bëgg ak mairie. mairie ak lycée. waaw parce que am na kenn ku ma wax ne li gën a sonal euh, ndaw ngor moy buñu ñu jàngee ba am benn niveau yi sax dañuy arrêté parce que amuñu lycée bu ñuy dem te seen loxo jotul seen ginnaaw il faut que seen njaboot di leen jox xaal ñu dem di jàngi ci yeneen lycée mu nekk une demande qui est réelle loolu dafa yàgg ñun ñëpp moom la ñu dund yow suñuy rak wakaam la ñuy jàngee ñeneen ñi Lamine gay ñeneen ñi feneen ak feneen donc loolu mooy réalité bi 19 communes de Dakar ngor rek moo si amul CM amul si lycée 19 yëpp 19 yëpp ngor rek moo amul CM amul ci lycée amul CM amul lycée te xoolal patrimoine bi ñu bàyyi woon ngor si remembrement des. ak li ngeen am ci souf lepp ñu nangu ko dëkkee ñoom am na 6000 m2 bo xamantene mu ngi yow Zalma dernier film Maurice. CM mhm. lañ fa prévaroon bo démé immeuble 20 étages duma ma gaawtu nak ndax ñu ngi gëstu kan moko mom ta kañ ma wax ci régime actuel bi la bok waye comme amaguma si firnde du ma ko wax tank awma ci ma immeuble 20 étages la fa tabax. 20 étages mu ngi tabax mu ngi en construction pareegul. am na Maurice bi fi mu nekk ci ginnaw ci ginnaaw c'était destiné pour un CM. amna sax un privé buñ ko joxone mais bogo sama maam moy won chef de village bi mu demee pose premier pierre mu laaj luñ fay def ñu ne nanga mëna du ci dal yaq lepp fam bi non la fa joggé ben CM buñ waron def xoma CM la jor xoma nan kilifa gi bañ donc lolu moy moy réalité bi am ngor donc lepp lu ñak suñu suñu suñu autorité ñoko tek pap bo Pape ngor ancien directeur impôt yi demee na directeur du cadastre ministre des finances ak ñom ñofa am ay espace yu dul jeex yëpp ñoo ko jël dagati ko seen biir joxante ko seen biir ay prétendants yu dul jeex c'est ça la réalité boo dernier demee dernière kacaab bi noonu lañ ko def ngor suuf bu mu am état nangu na ko ñii moom seen tool mu légitime leen ñun am nañu tool mu légitime ñu 33 parcelles la ñu proposé samay maam ñu bañ na duñu am 1 hectare ñu leen si proposé no ay hectare sax plus de 600 parcelles ñu leen jox 33 parcelles. Mm-hmm. dañu bañ sama maam jëlu ko ba bu mu génn àddina

dëkkandoo gendarmerie yombatul ndax en buy dem abadan daay man te man naa ñàkk comme sécurité la man moom fu ma dem gendarmerie loolu bañ a dégg bëggatuñu gendarmerie police lañ soxla sañ nañ kaa wax xanaa sécurité du sécurité rek mais boo ko waxee dañ naan laan kew ko vous le veuille ou pas dinañ fi gis un niveau de la gendarmerie sa xol di dagaloo si man dara loolu colonel Abdou Mbengue wax na ma ko devant tout le monde ma ne ko nañ si dem da ngeen di jaay près de force nañ si dem ñun bëgguñu fab gendarmerie nañu fa def suñu lycée ak suñu mairie gendarmerie bu bu bëggee ñun mën nañ def essence ñàkk suñu titre bi si bi ñu jox ko mais à côté ñoom ñu ne foofu lañuy ñuy toog démb le ministre Abdoulaye Diouf Sarr seet seet chef du village woow kilifa gi mën nañu vingt et une heures na ngeen ñëw. Mhm. donc du lu ñu waajal d'ailleurs maire bi. mu ngi koy jaar boobu sax boobu tàkk. waaw. dafa xuus dañ ko xalal mu ñëw boobu ngoro gi tàkk boobu ngoro gi tàkk boobu la am dese léegi yooyu yëpp voilà non man ba une heure du matin wakaam dama ne la maa ngi grenade président bu toogoon mer moom mi ngi dégg grenade yi waaw àddina bépp dégg nañ ko même li woon ngor almadi gépp dégg nañ ko dégg loolu kay moom mooy dëgg moom donc bi mu ñu waxee vingt une heure am nañ rendez vous pare ñu organiser wu ndax am na benn dynamique bu doon dem mm-hmm. bi ñu demee donc ay vingt trois heures et quelque la ñu tàmbali audience bi daanaka deux heures quelque lañ fa génn Mm-hmm. donc nous nga une kon discussion bi le ministre de l'Urbanisme, le ministre des finances le euh, le premier ministre le ministre de l'intérieur nous avons une Abdoulaye Diouf donc délégation comme d'habitude, le maire le chef de village et ses deux adjoints ak en tant que chargé de l'urbanisme En ak ancien maire Mamadou Kane et Habib ak Babou Sam donc ak Wali John. donc nous avons composé Ami Top bu mhm. ak Diouf Sarr donc ñu composé watan. bi nañu ko doon defee ci gouvernance nous lañ ko defee devant le président exposé problème bi wax naxar wa ñu am ah ndax mbaay gi état bi dëkk ak ñun ma ne 15 mai 12 mai 2015 lu mel ni amoon ngor si vous vous rappelez 16 mai 2017 16 mai 2016 gouverneur Fall m'a fi ne mu la collectivité de Tank. Ngor Wakaam Yoff ne leen président daf ko wax na na régler problème lébu yi si aéroport bu mu jeex nañu former benn commission commission bi dëkk bu ne day am deux membres Wakaam na nañ ko def trois membres ndax ñoom ni ñu constitué woo su ko defee kii bu nekk am el ko ko fa représenté gouverneur nangu ko dëkk bu nekk am ñet andi ñetti membres pour ñu def benn commission def benn morcellement administratif octroyer les trois villages. Mm-hmm. jamono boobu di euh, chantier Sokabek yu IPRES. xalé yi tank dañ ko bloqué na benn brique duñ ko tek ak yu yu jeen far saar 990 hmm. parcelles yi benn activité am won si ci aéroport bi buñ fa duggé ndon daraani xale yi menacé leen ñu génnaat donc fofu lañ jaar mag ni ba mag ni na xalé yi bayi len comme bour wax na ne ndawam mu recevoir ñu ne dinañ ko def ñañ jotta jox nañ leen bàyyi hmm. ñun nee nañ leen woon risque la pap bañ fa génné tabax nañ seeni kër gouverneur keroog la gëjë a toog ñoom ba bu mu fi jógee toogaatul ak dunah, maanaam daf leen nax rek. voilà xam nga loolu du nax as gor jàkkaarlu kilifa. kilifa yaba am mooy suufeel boppam. voilà waaye di sa bopp la ak ah, wax lu dul dëgg. Mhm. ndax ñaari gor bu ñu tënkee kii dem yóbbu njabootam yow nga def la neen naxoo ko da ngaa wane sa jubadi mais loolu du naxaate. Mhm. donc loolu la ñu dëkkee ak suñuy kilifa. léegi président moom lan la dogal finalement ak lan ngeen d'accord foofu. président nag comme lii am am na te gendarmerie xas na ba installé wu. chantier bi sori na da ngeen di bàyyi ma jox ko 3000 ngeen jël 3000 ñu xaaj ko si digg bi ngeen def ko seen lycée terrain bi nekk à côté nañu exproprier borom dolli leen ko Pape xam nga ne suñuy école ak suñu stade yëpp nekkul sur turu commune de Ngor ay litige la dañu forcer def ko wax stade Ngor bi. y a des titres privés si remembrement des Almadies. am na ay ay ay ay naar yu ko moom mais ñu nekk nag stade boobu dañu bëgg ñu tiitale ko jox ko commune bi ak si ginnaaw stade bi yaa mhm. neuf mille hectares mhm. neuf mille mètres carrés mhm. près d'un hectare bu fa am nañ ko boole ci ci patrimoine bi équipement yi nekk Sokabet ñoom ñu ko proposé woon y a dix équipement bu ñu ko totalisé ça fait un hectare trois cent ñu jox ko ma ne leen équipement yooyu ça nous revient de droit xanaa duñ ko jox privé wala ñu di ko daggate ay kër équipement bu nekkee si commune kay maire bi jiite commune bi. moo war a porter projet ba fa ne. ba fo la fa war a am juma mu def ko fa war a am hôpital mu def ko fa am centre commercial mu def ko fa. mais dañu ko nëbb depuis ñu toog ba léegi coow li lañ koy door a génnee pour ñu jox ko équipement yi commune bi. ma ne leen littoral bi corniche bi 2000 mètres carrés yi ñu fa am ay haute nañu annulé titre yëpp ñu jox ko commune bi mu ne service yi nañ ci liggéey waaye li mu àtte te mu génn si wax ji yëlee nee na nañ ko topp. littoral bi ñu déclassé jokkay privé nañ ko délo privé yi jokk seen borom yi ko moom laajotuñ ko su tour famille dañ ko laaj pour la commune dinañ fa mëna def ay ay yeen investissement yi boo xamantene mëna jur leneen on va acheter des terres ailleurs pour notre génération future xalé yi dem am faneen fuñu dëkk mm-hmm. lolu moy suñu projet té lolu war nañ ko nangul gor gu ci dëkkam gannaaw limu dund ci souffrance mm-hmm. donc lolu mo fa génné lamu mu wax nag mooy loolu danañ ko def mm-hmm. danañ ko def lépp lu am. si assiette mille 3000 mille ngeen mujj a jubóo après mu jox leen li ci des. waaw yeneen yi. à côté yeneen yi am. bu bu yëpp bu delfin boobu. bu delfin boobu nee dina ko exproprier jox ñu ko. biñ bëggoon gendarmerie dem fa bàyyi ñoo parking bi. Hmm. nee na dina ko exproprier stade bi itam la fa nekk si ginnaaw yëpp loolu moo génne ci waxtaan bi ñu nit loolu la ñu wax waa dëkk ba liñ ko njëkk ñànd ñaan nag mooy nañu arrêté travaux yi ba ñu àtte li ñu wax. arrêté ngeen wala arrêté nañ tey wala arrêté wuñ tey. gisaguma fa ban activité xam nga bi may ñëw sax jaaroo ko côté boobu. dafa am fu ma nekkoon. mbañ mhm. di gën a guddee. moo tax ma jubal fii. donc loolu la ñu di arrêté loolu nag dinañ ko saytu bu dee dañu continuer chantier bi danañu au gouverneur wala premier ministre naka la ñu waxante woon. ci kanamu njiitu réew mi. waaw respecté wuñ ko. moom moo ko wax dina leen wax ñu arrêté ba ñu waxtaanee lii ma ne bu boobaa nag buñ si loolu bu dajee ñun dinañ ko yóbbul population bi. dana ah simi mètre carré yi day waxuma fajal nañu ñu problème mais la ñu rëccoon sax. dabu ngeen dabu nañ ko te loolu la ñuy ñaan léegi li ma jaaxal damay dégg turu Auchan ci terrain boobu lu xew foofu. Pape jërëjëf. <laughs> foofu gisee loolu tax bala leen coow am na leneen lu ci laxasu. coowal Auchan man ñëw naa fa ñaari yoon eh, ñii day exercer seen commerce foofu si site bi à chaque fois bu ñu fa gisee benn machine buy def test de sol. Hmm. dañ may woo bu ñu ñëwee ma génnee machine bi. waa ji rek envoyé ka ne ko lijjantiwuma ki la yoni test de sol pour lan mu ma dañ ci war def ben immeuble xoma lan mané immeuble fi gennal waa jël bagage am lié dem. kooku ku fa yebaloon. xamna ñu waxul nag premier jour kan moko ko yebal. Mm-hmm. mais dal néna amna autorisation gouverneur. gouverneur mané ko gouverneur mo la jox autorisation ñu dëkk té ñun duñ ko yëg jël sa machine nga dem waa jël machine am dem ñu tok 2 à 3 mois lu mel nonu amane ñu waxaat leen ñu jël seen machine dem mais am ay nit yu jox ñëw seet si monsieur le maire waxtaan ak moom benn waxtaan bi fekk naa ko waaye yeggaluma ko ndax man am na yu bu ma ko xasee ba wax man maa ngi ci leneen. Mm-hmm. dama ne leen Auchan woo Carrefour kenn du ko fi teg patrimoine bi patrimoine dëkk bi la ndiggin lii ñu rëcc si aéroport bi moo ñu sori ñu rëcc ko waaye du lii la doon suñuy bët. Mm-hmm. donc man ngeen a arrêté seen i seen rêve bi ngeen nekk bay ba ngeen arrêté ko donc amna ben benn bu nekkoon ci jataay bi bu teel a comprendre mu ne bon les dëkk lébu dafa compliqué donc nañu xol nañu waxtane village autochtone bi ak lébu yi te bañ yem ci administration bi donc euh, Pierre Atépa Goudia bi mu won ci délégation bi. Hmm. ak benen way bo xamantene mo moo sen di travaux ñu waxtaan ñun ñu avancer mais bes dama tok ak suñu note yi ñu doon demander service yi lu melni domaine euh Mamboy Diawo Oma. man bo jaaw ancien directeur de domaine kon ci dil bi la bokk war xam ah moma wo waaw bi ma wo itam ma dem wuyu ko wo ñewé mu ah monsieur le maire yow sa demande bi gis naa ko donc euh, mais loolu dinañ ko gérer ah équipement yi yooyu ko gérer à ma grande surprise mu entré ma si bureau ma ñëw fekk fa ñu toog benn naaram fa ak ay sénégalais ma mi c'est responsable de Auchan et cetera wax wax wax dugg ci parking bi man ne ko donc man man doo am sama réponse ah non moom moom ba mu la woowee. bu wax la ne waa Auchan dañoo soxla parking bi la woon. waaw. Ah. ma ne ko loolu du ma ci wax. loolu moom da nga ciy ko moom. ciy wax ak monsieur le mhm. ah lu jàll CCOD ay kilifa ko waxtaanee. CCOD. fa la mujjee. Auchan. Auchan jàll na de dañ ko bloqué foofu léegi bi ñu. bi ma waxee loolu ma ne ko non man mun a ma tu es le maire de Ngor ma ne ko non je ne suis maire a ma non dañ ma jox na maire de Ngor ma ne ko maam man du maire Ngor suuf si. boobu ma waaye man du ma maire Ngor. Mhm. ma oo maire bi jotuma ko ma ne ko dinaa revenir jëlal numéro ngoowu ko bi ma jotee maire ma oo Mamboy Diawo ñu fixé un rendez-vous un mardi. Mhm. rendez-vous jotul am ndax conseil des ministres décentralisé président bi amoon Tamba. Tamba. fa la dem jiitu président kooyee mu ne malheureusement dafa jiitu président donc toogaatuñu ak moom amaatuñu suite ñun si PM lañ dikkee yëg premier ministre Amadou Ba mhm. si bii problème bi amee gendarmerie bu ñu insisté di liggéey ba xale yi dem na dañ foog gendarmerie arrêté muy veyu Korité bi si la ñu Ba o pour ñu toog ak moom donc jotuñu génn vendredi boobu le jour de la Korité jotuñu génn et le dimanche la ñu recevoir ñu koy remercier au passage. Hmm. wax dëgg yàlla ndax dëkkandoo la tey taxaw na ci. bi mu ñu waxee waxi Auchan ma ne ko loolu bu ngeen ko laajee maam jaaw di ngeen am réponse waaye ñun bu ñu kenn laaj Auchan. est ce que la lan la ñu nee nañu bon problème bi li ko andi Auchan donc ndax da ngeen diggaale ak Auchan nag ñu ne ko ñun diggaaloo ñoo dara Auchan. amu leen këyit boo leen signé Auchan. maam jaaw daal bu ngeen ko laajee di ngeen di ngeen xam li xew ndax on a ma teg fa waa Auchan. Hmm. waaye man maa ubbiwul waxtaan lu jëm ci loolu. donc mun a baax na ñoo ngi mën seen enquête donc bi ñu toogaatee gouvernance wax boobu dafa jubaat man a service yi yéen avant mu jàll CCOD dina am ñoo xamante ne dañu joxe seen approbation. Hmm. cadastre urbanisme et autres. donc projet Auchan nañu wax kan moo ko porté en tout cas du actuel équipe bi nekk ci maire bi maire bi te it passation de service fekkuñu fa lu lié maire sortant ak Auchan. Hmm. comme titre d'état nak amna état bi lañ ko diggaleel maire bi it ba see bokk it xamna principe na ci and rek luma ci ab jël c'est hmm. sunu jort waye gisou nga lenn loolu léegi lié à Ousmane man nak dama ragal ba hmm. ñu bogo bogo 6397 yoy ñom ñu dem sur ben wall sept bëgg jox Ousmane man na né waye en tout cas dal gendarmerie nee nañ loolu biñ ko yëgee dañ jàppale ñun ñoo leen poignardé au ñu ngi wax ah, loolu gendarmerie ñom ñom dañ yaakaar dañuy waxtaan ak ñun ñun ñoo porté le projet de Auchan ñu ne leen PM moo ñu ko yëgal ñun ci ay rajo la ñuy jàkkaarloo di wax àddina gëm du ñu dégg. dëgg la donc am loo contredire. Mm-hmm. jàkkaarloo àddina gëm nga contredire ñu xanaa yebu ñu yëpp sénégalais yëpp Auchan am lu ñu diggaale toog fii bëgg leen a bàyyi problème bi génn si ñoom dinañ jël seen ay responsabilité mm-hmm. ñun diggaale ñoo Auchan dara ku diggaale Auchan nag yow la concerné te xam nga nag terrain bi loolu buñ ko atté woon beneen coow lay jur. buñ ko joxoon Auchan mooy pire bi bu gendarmerie. waaw parce que dañ ko nangu ci privé jox ko ci privé non. loolu le directeur Descos wax. waaw bi ñu dajee si rencontre le 6 mars ou le 8. waaw mu ne privé yi ko laaj yépp mhm. dañ koy remercier au passage mu ne parking bi ñii ko courtiser euh, du jeex. saabur yi saabur yi mais à chaque fois bu ñu ñëwee damay bañ ndax mënuñu ko jëlee si un privé di ko jox un privé donc saa yu jàll saison damay bañ y' a beaucoup de privé qui le demande. te loolu wane na ko parce que moom si ñuy contrer CCOD bu Auchan bi si la bokk. Mhm. donc loolu la gendarmerie yëg dem accaparer terrain bi parce que ñun précipitation bi jaaxaloon nañu changement bi jaaxal nañu koy waxtaanal mu lay fexe noo toogee si commune am. Mhm. ngeen am collaboration bu nu mel. Mhm. terrain bi ñu seq ak gendarmerie yëpp ñu xëy ñu taxawee taxawaay boobu ñun taxawaay bu ñu bett la bu ñu jaaxal la ñoom nag nee nañ dañ yaakaar ne ñun ñoo diggale Auchan même buñ ko digal waa Auchan si kaw la bile bil bi si la buñ ko digal waa Auchan lolu lolu du du jox lay gendarmerie ak attitude bi mu am doxale ko ci digënté population bi hmm. donc ñun Auchan lolu lañ ci dégg président nak nee bi mu ko yégué entre Auchan ak gendarmerie mom mo préférer jox gendarmerie bàyyi Auchan ndax gendarmerie mu ñu fi né di soxla Auchan di soxla muy jox Auchan di jox gendarmerie lolu feeñ na dem démb suñu waxtaan lolu wax waaw donc lolu mo andi peut-être li la justifier li tax dana mëri akabaare terrain bi yëpp. waaye léegi daal ñu jàpp ne terrain bi xaaj nañ ko ñaar da ngeen jël 3000 gendarme jël 3000. si kaw ci kaw. la ñu wax ñu def ko. waaw ndax population yi ba tey am na ñu déggul loolu. ñu déggul loolu. te dinaa leen wax lenn de boo leen gaawul. si hmm. seen 3000 yooyu. jëli entrepreneur. Hmm. bu leen ko joxee ngeen commencé samp seen mbir ñu lu laalaat ñu jëlaat nanguwaat. ko ci yéen non foofu laalaate la pap hmm. laalaate lañ laal. te buñ si insister. Mhm. lu bëri mën na yàqu si réew mi foofu mooy buntam dëkk bi nag foofu mooy gàllaajam ngor. Mhm. village traditionnel bi foofu mooy gàllaajam te wax nañ leen sacral te set bi buñ ko caaxaanee jàppar na fu ñu dem si dëkk àdduna dañuy jaay doole dañuy xaram da ñoom. Mhm. ñu ngay suul di saafara ñoom. foofu ñoom ñi fa ne. Eh. ñu ngay suul di saafara. <laughs> ndax suuf. wallaahi ñu ngay suul di saafara boo demee nag ba yow yematoo si. aka para ya ngi sul di safar xam nga am nga am nga fo dugg fo warut a dugg. Mm-hmm. am nga loolu la lo warta a ni da ngay adam aadam ci sanam gis ñu ben lebu buy xëccoo suuf donc lolu moy situation bi xew ngor ta buñ ci delu ginnaw bëgg def forfaiture du len jural dina ñu ci ñun rek ñu am lu ñu kuté te gun yi nee na ñoom pare nañ ndax toroxal gi dafa doy. seen mbokk yi lebu yi tamit ñep par waaw kon nag ñun ñu ngi oo te sénégalais yépp ñu ngi leen di jàppale parce que yépp la ñuy ñu ñu ñu injustice bi ñun bëgguñu ñu faral si ak njubadi mhm. ku ñuy faral faral ñu suñ njub ndax doxuñu suñ njubadi mhm. injustice bii di dund dafa ëpp te maa ngi wax ak mbokki lëbu yépp buñ jogul si problème ngor bi étape par étape la xam nañu ne dëkk lëbu yépp si ndox bi la ñu ne fa gi ñu koy di leen te ñëpp xam nañ de la mer mu ngi am mhm. bu ñu deful fulla ak fayda si am taxawaay dëkk la bu yëpp dinañ disparaître dinañ génn Ndakaaru ndànk-ndànk loolu mooy seen projet. juróom ñaar pecc yi. romb na ko 121 villages la bu yëpp. 121 villages. bu ñu xefee seen patrimoine bépp état bi naka nangu te mënuñu ko justifier fen ndax foo dem si àll bi ñoom ñi dëkk si àll bi ñu ngi ay hectare xam nga ne ñun am nañ problème ak ma Madiambal waaw. am na article am na article bu bind ne. Hmm. xam ma Madiambal dafa def article. Mm-hmm. ne li mu doon am yi président moo tax ñun ñu bañ ko autorisé autorisation de construire. waaw xëy am ku ma envoyé benn benn capture d'écran. Mm-hmm. na mairie Ngor na Pape Alé parcelle <laughs> deux cent mètres carrés xaw ma quatre cent mètres carrés. yow de maa ngi lay doon gis. waaw. yow. sa dossier ñëw na mairie. yàgg na fa trop. torop ñun fa lañ ko fekk dëgg la amuñu woon xolop signé benn autorisation de construire bu jëm si aéroport bi dëgg la ndax dañu yàgg xeex injustice bi nekk si aéroport absolument biñ demee ba ñàkk pexe hmm. la ma ne musal maire nañ signé te jël suñuy suñuy suñuy koppar hmm. ndax buñ ko signé wul it ñoom danañ ko jël donc ni nga si bénéficié oo noonu la si keneen bénéficié oo pour vous dire que ni ñuy marigancé loolu maa la koy door a wax benn yoon lañ daje buntu maire yi hmm. nuyoo bi sax yaa ngi occupé sa téléphone man maa ngi jàll xaw ma ndax moom nga doon jël sa xaw ma ndax leneen nga doon dox si. Mm-hmm. waaye ñun daal fekk nañ nga fay sax sa euh, kii bi. 7 millions et fay nga ko ba pare mm-hmm. autorisation bi daanaka signature moo fa des ñun bi ñu fay ñëw ab signature doo nga si des. Mm-hmm. dëgg la donc sa déclaration bi nga koy fay yooyu ñun fekkuñu fa. donc ñun dañ ñoo fekk fa kii mais si ñëw ñu ko dañ ko fa tey lu yàgg. pour dire que ni ñu insister ak ni ñu mën a sosal doomu aadama. waaw nañu sosal. dara dara dañu sosal. dara dara dara boole ko yow. maa ngi lay gis yow. wallaahi azim yàlla yàlla bi bitim xam la ko. waaw donc noonu la ñuy def. Mhm. ma jàmbal fi mu ne littoral bi loolu problème boobu la am. mooy fi mu bëggoon tabax am ay xale yu ko waroon noonu. waaw ci wetu géej gi. waaw man dem naa ko opposé aussi. Mhm. ñu dem gouverneur rek yëpp ñu waxtaan. fi mu ne dafa sëkk géej gi def ko motax bi géej gi gën a xee dafa jëlaat lépp ce qu'il a fait dafa dem jële ji ay centaine de camion ñëw sëkk géej gi te nee naa gouverneur na génne la mu fa sëkk ndax la mu fa sëkk day impacte village traditionnel bi ndax uul bi bu dalee foofu day oññu ko dem si village traditionnel bi dem attaqué suñu kër te ma jàmbal gënul duñu gënal suñu bopp yoon mayul kenn ngay fekk géej di ko sëkk pour dëkk. te géej ndoxu géej moo pour doole sax. xam nga injustice xam nga loolu boobu ma jàmbal fu ne nga dégg fa kër mais li gën a injustice àddina bi mooy ngay sosal ay gor li ma doon xaritu président moo tax ñu bañ ma jox autorisation de construire ñun dañ xam ku dégg ku seex ak président ak ku ko noonu. Mm-hmm. ñun autorisation de construire la ñu xam. bu mm-hmm. jaaree urbanisme lépp jaaru yoon ñu andi ñu ko si télé d'acte bi man de bu ma xoolee amul litige je fais une note na maire c'est ok. maire mm-hmm. dem signé déclaration bi nga fay. bu arrêté bi génnee ñu signé préfet. approuvé très bien ma nga leeralee man xam nga man loolu sax yëgu bëgg woon. ñun article boobu envoyé nañu ko mais ñun sonn ñu si. non non man loolu sax yëgu bëgg woon. parce que lu bon doon impôt fay nañ fa au huit à sept millions. te lépp dafa jaar ci notaire. waa jaar ci procédure maa ngi lay doog a gis. koo gis. pour vous dire que ne ñi fi ñu toll si intox. intoxication ak yàq. ak yàq. ak ak jege président. xam nga jege président ñu wax ci. jub moo gën jege président. wallaahi lazim jub. Mhm. moo gën jege président. looy am mu lem boo taxawee toog jaar ci notaire say këyit yëpp jaar ci notaire jaar fu mu war a jaar te gisantewul ak yow lépp day neex mais loolu moo mujjee moo mujjee ñëpp dañuy jaar ci notaire mais avant ñuy jaar ci notaire nañuy def ba am bàyyi mu a ñaaw foofu la dil ne mm-hmm. non man dama jënd ci notaire samay këyit yu leer a mm-hmm. mais avant muy jaar ci notaire mm-hmm. fan la jaar ba am bàyyi bañ dina ko jaay ci notaire foofu la di gi ne y des gens qui se permettent espace bu ñu gis dem régulariser ko jaay ko bu ñuy am notification di jaay. ils sont près du pouvoir. très proche du pouvoir. c'est c'est grave. wallahi azim man damay arrêté ñu bëri da ngay fekk mbedd nga xëy ñu génnee tali ñu ne la tali bi jaaratu fii ñu jël ko jaay ko dëkku ñu ngor jëkk ñu ñu ngor mais lu am si assiette foncière bi am ñu leen informé seen proximité ak pouvoir bi may na leen ñu dem demander ko régularisation dem jaay ko.

bëggumaa toog feegu weer ma woowaat la fii nga ne ma Pape Alé lañ ma waxoon lépp respecté wuñ ci dara gor dafa naa waxam kàddoom da koy tënk et c'est très très très important te nag vraiment man mënuma ko maa ngi doog a rat dix-neuf communes d'arrondissement baa nga ñu ne Ngor moo amul CEM amul lycée kam te nag ñi dëkk Ngor mënuñoo dëkk Ngor ñu dëkk ci àll ba xamuñu les pieds dans l'eau mosu ñoo jege géej ñëw ne rek parce que foofu dafa bakkane ne lañ fay dëkk ci anam boo xam ne jaaduwul vraiment merci beaucoup vraiment si li nga ñëwoon tey pour leeral askanu senegal di leen sant di leen gërëm di leen dig daje ci beneen émission incha allah ci kanam tuuti ak euh, euh, le premier ministre Abdoul Mbaye dina ñëw indi moom tamit ay leeral yu am solo ci taxawaayu réew mi ak li ci xew yépp jërë ngeen jëf